internet yi euh, euh, ñu déglu rek kàddu yi nga xam ni suñu maam Abdoul Aziz Sy baax moom itam bu jamono tolloon fi daal na wax ak ñi nga xam ni rek ñoo di njiital réew mi te kàddu yu am solo loo xam ni président Macky Sall war nañ koo déglu baax a baax. Mhm. di kii yaa ngi di kilifa ak àdduna bàyyi nga sa lépp ngir moom. gis ngee nit nit ñi kii du lu ñu leen di nettali yéen a ko gis ak seen bët xam ngeen nit ñi fi daje du kenn ku ci nekk la ñu jox ne la mandat wala mu jën dërëm bi gën a tuuti jox la ko. mi ngi leen jënde ci ngor ak lislaam ak jikko yu rafet ak yàdd nag muñ war na nekk tey waar ak bind bu bees la ci ñun ñun ñëpp. war nañu delloo suñu xel ci yàlla te xam ne lu fi waay nekk war nga fa jéem di def lu baax ndax soo fi jógee ëllëg nga am taxawaay bu rafet. ñun ñëpp war nañu delloo suñu xel ci yàlla te xam ne lu fi waay nekk war nga fa jéem di def lu baax. waaye ñëpp dañ daan fal ak di folle dem nañu tey Lamine a ngi nii dégg na président ci lu nekk anamu tey ay na huwal ana njubóole seen i mbokk te doole ji leen yàlla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des te yërim waxatuma la doole yàlla te man zalama a kaana allahu xasmahu yawma alqiyamati Lamine a ngi nii génn na këram tey junni yaag sees ba mu daan toog ak jóg adduna yëpp di dégloog jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki lixlaas ak benn ak di ko yaakaaral njëgal ci yàlla di ko ñaanal góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga ñu leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole bu ñu la dénk te mu war la ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki lamin nga ñëw tëdd di dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru déet leen tuuti man waxuma waxuma pour ñu applaudir dama leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi daan nekk te xamuloo ni ngay lan la ñu xam ci biir Lamine ci mu nekk léegi ku ci xam dara ya yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem sa des kullu nafsin zaiqatul mawti kullu shay'in halikun illa wajhah kullu man alayha fanin wa a wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi po te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye du dugg ak di génn te tëral sa lammiñ te kenn signéwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëgee daa daje koo xam ne kii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy siis ba mooy avocat mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor seen yàlla ba mu xam ne kii mooy gañ avocat bi gañe na mu ne bay na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bay pom yi te bay kattan ñi ñu dénk nit ñu fab ko jox ñu bi seen dooley bopp yàlla baaxe leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox leen ñu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaam yàlla yi du dëgg mu ngi noonu di kàddu yi ki nga xam ni rek moo nekkoon suñu maam di sëriñ Abdou Aziz si euh, maam Dabaax mu nekk kàddu yoo xam ni war naa itam delluwaat ci askan bi war naa delluwaat itam ci njiit yi war naa fexe itam ba njiit yi delluwaat ci njàngale mag ñi ñoom dañ doon woote jàmm tey li mu wax rek doole kenn du la ko jox nga di ko xeexee doole kenn du la ko jox nga di ko noote sa askan di kàddu maam Abdou Aziz si Dabaax ñu ko doon fàttali rek askan bi di ko fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu jëlaat appel allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Ba. ñu ngi sant bu baax fan lay wootee. maa ngi ñëw si Grand Yoff. Grand Yoff d'accord ñu ngi lay déglu nga joxe sa xalaat. waaw di rafetlu seen liggéey rek. jërëjëf. ndax euh, jàmm ci la lépp hmm. rek. waaw ndax jàmm jàmm ba maanaam lépp lépp lépp mën a ci àdduna rek jàmm moo jiitu quoi. Hmm. ni ngeen di doxalee euh, wax dëgg yàlla man man de rafetlu naa ko lool. jërëjëf jërëjëf. ndax ndax ba musiba kenn xamut mën nga koy tàmbali mais kenn xamut fu mu yem. Mm-hmm. te lii ñu bëri tey ñu ngi woote naan na dem na dem na dem na dem. Mm-hmm. amaana mën nay dema dema dem ba xam ne nii ñoom ñi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi ko woote woon sax mm-hmm. ñun ñi nga xam ne nii duñ ci dara ñoo ciy gën a loru ndax musiba bi am nii dara gënu koo rëy. tam tey mu ngi ci tali bi. yem ci tali bi yem ci kër yi. ci fii euh, mën nay dem ba si biir kër yi. te bu boobaa suñu njaboot ñoo ciy def. ñoo ciy yàqule kon lépp lu mën a al lépp lu ko mën a fay rek kenn ku ne war a daw. waaw man de xale laa de waaye de lii koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax. Mhm. ndax nekk war na mën a am noo ko réglé. doxu ñaxtu ñi man mënu ko ñàkk def mais doxu ñaxtu la si doy mooy nga takk sa marto yu ruus mhm. def mobilisation dox li ngay dox doo yàq dara mhm. bu élection jotee nga jël sa carte nga dem woote ji mhm. ngay fal nga fal man loolu laa xam waaw maa ngi leen di sant bu baax seen mag si ngeen di doxalee nii jërëjëf jërëjëf masalaam jërëjëf allo asalaamaaleykum aleykum salaam ku baax ñu ngi fan ngay wootee Eh, maa ngi woote fii ci Sangalkam. d'accord ani waa Sangalkam. waaye ñu ngi si jàmm alhamdulilah. ñu ngi lay déglu nga joxe sa xalaat. di ñaawlu rek situation bi nga xam ne si la réew mi mhm. te di wax ne nañu bàyyi naxante bi. Mhm. jàmm mënta am fu dëgg amul. Mhm. jàmm. mënta am fu dëgg amul. moo tax sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam Jibril daf na ko woon. wasalaamu ala man ittabaha al huda bu ñu ñaana ñaanal jàmm ñaanalul ñëpp jàmm de daf na ko jàmm mm-hmm. yal na képp ku topp dëgg yal na nga am jàmm mm-hmm. te gis nga réew mi manquéwul ay kilifa mm-hmm. réew mi manquéwul borom xam-xam mais réew mi nga baal ma ci kàddu gi dafa bëri ay naafeq te réew mi tey génération xale yi ndaw yi ñuy tuddee ay jeunes jikk yi doon xaar ci mag mag mu jub ñoom ñoo ko yokk mm-hmm. bu ñu demee tey ba nga xam ne ba nga xam ne tey ñoo xam ne seeni i maam kenn du kenn du kenn du naataable seen i gëm yàlla ak seen yàlla ak seen ak mandute uh-huh. seen seen sët toog jàkkaarloo nguur naan ko gëmmal dóor xoolal dóor soo xam ne seen i maam kenn du naataable ay nit yàlla leen seen i sët di def loolu dafa ñaaw gis nga nag sénégalais allo. Sénégalais nga tabax réew mi ba mu mel ni Dubaay. Mhm. nga nga nga nga yemale leen moo leen Sénégalais ñun soo gisee ñun. Mhm. kumba am ndey ak kumba amul ndey. Mhm. Sénégalais mënu koo nangu. te gis nga dëgg. nañuy wax lu leen neex mais peuple mooy yu àtte dëgg. Sénégal. moment bu nekk dafa am lu fa lu fa gën a yoo xam ne moom la yàlla da mu gën a bëgg. Mm-hmm. gis nga sama mbokk séeréer yi. Mm-hmm. ku leen dàq ëpp tuyaaba. Mm-hmm. man pël laa. mais bu tabaski jotee ñoo la ëpp tuyaaba. parce que tabaski yàlla bëgg na ci jaamu yàlla gëm fa gën a bëgg muy lekk ak naan. te mbokk séeréer yi moo tax bu tabaski jotee kuy ut yool rek ñoo la raw. mais moment bii. xeex injustice bi nga xam ne président Macky Sall moom lay teg population sénégalaise. Mhm. jihaad gënu koo fort. te monde bi dafa sensé nit ñi dañoo jàng. Mhm. nit ñi dañoo jàng. nañu di jubbanti dëkk di toog ay woote jàmm woote jàmm yëpp couleur naa fekk rek lay joxe. Mhm. balaa jàmm am dëkk bi day am. kenn dëkk bii gënuñu gënuñu Égypte. gënuñu Irak gënuñu dëkk yi nga xam ne ay yonent ñoo fa tëdd. ay yonent. ñooñu mm-hmm. nga xam ne seeni dàll rek ñoo gën suñu nitu diine mais dëkk yooyu bi nga xamee ne jàmm dëgg amu fa dafa tàkk mm-hmm. Sénégal na ku naan tàkku tàkkul rek dafa fekk amoo dafa fekk ñuy dee bokkaloo ci mais réew mi moom tàkk na mm-hmm. xanaa kay yàlla na fi yam la ñuy wax mais tàkk na waaw yàlla na fi yem la ñuy wax amul dara dara lu Sénégal war a am ta du tàkk fu dëgg nekkul dëgg dana tàkk fii ay nit yàll yu baax ñoo fi nekk waaye prophète nekk fi dëkk yi am prophète ndëng te am fa sa mi ngi tàkk nañu bàyyi caaxaan yi balaa ñoo ñaan jàmm nañ nañ wax ki tooñ ki tooñ ñëpp xam nañ ko bu ñu àttee nag peuple sénégalais dinañ àtte bu ñu àttewul peuple gi dinañ àtte wa salaamu alaa man ittaba'a al-hudaa jërëjëf allo asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi leen di ziar bu baax bu baax. ñu ngi doon les ziar wér. Euh, ñu ngi teewlu waxtaan wi am na solo trop. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. sëñ bi ba mënee tey ligne bi ñu joxee benn information. waaw xanaa di woowaat euh, askan wi rek ci dal. Mhm. di leen woo si jàmm ak salaam. Mhm. xam ni lépp lu dal mënul régler moom leneen mënu koo régler. Mhm.